Euh, Abdoulaye si euh, Chérif ñu des ba tey ak sujet boobu ndax moom mooy actualité bi tey jàngat bi euh, ci Ukraine lañ ko jëmalee digganteem ak Russie mais surtout surtout lii Sénégalais yi fa nekk ak. coow liñ ciy dégg ak yoo xam ne mhm. euh, sànq tey euh, tey bu noonu la tudd yaakaar naa Marcel nee na bëggul wax waxu racisme mais quand même euh, Union africaine mi ngi alerté parce que jot nañu ay message yoo xam ne dafa bàyyee ko foofu que mauvais traitement ñu jëmale ko ci yenn ci doomu Afrique chérif. tout à fait ñu moo tax ak Ablaye dañu bëgg mu gind ñu gën a comprendre cette guerre là sur le plan géopolitique mais laataa loolu mooy parenthèse boobu ay africains yu njot ne dañ leen di boddi ci réfugiés yi maanaam ñu mën a franchir frontière polonaise bi mën a mucc ci guerre bi euh, communauté internationale kay ñaawlu rawatina Union africaine. ñi koy def sax Chérif dañoo dañoo am tal. parce que situation bu mel nii di seppi di segg weesu na sax racisme. parce que xëy na ñëpp xaj nañu ci daw ba raw mm-hmm. ñëpp xaj nañu ci daw ba raw ñëpp xaj nañu ci bu weesoo les yu ñuy wax ni jël train la ñu bàyyi empêché leen jël train wala dugg ci oto yi mhm. da ngay gis en période de conflit nit ñi taxaw ci booru tali sax dañ leen di yóbbaale daw ba law raw la rek amatul statut amatul kii lii la da ngay gis ki nga xam ne day daw sax mhm. day tëj këram benn walis benn turóy bu ndaw lay yóbbu def ci àddunaam yëpp mhm. mënoo sax yenu sa kër gi nga xam ne tabax nga ko ay at mu doon sa projet de vie. nga yëkkati ko di daw ak moom ñu toll ci situation boobu sax di seppi diw yaa war a daw diw yaa war a daw dafa ñaaw mais li ñu ciy wax mooy convention internationale yëpp. Mhm. da koy tere parce que àdduna bi ñu jógee ci deuxième euh, guerre mondiale dafa am loo xam ne dañ ko ci jàngee bi ñu jógee ci deuxième guerre mondiale la ñu ne aviation. Mhm. ñu mu doon aviation boo xam ne au service du militaire rek lay doon. parce que nit ñi avion lañ doon guerre aviation civile amagul woon. ci la ñu xalaat def aviation civile ñu ne avion yi nga xam dañ ko utiliser di guerre nañ ko utiliser pour finalement rapprocher les peuples de la même façon convention Nations Unies 1949 moo njëkk a wax ci période de guerre dañuy abolir frontière li ñu ci digg mooy abolir frontière mooy amatul sax nit di daw pour dugg sa dëkk mm-hmm. te nekk ci xat-xat nga koy laaj visa wala nga koy laaj këyit daw làqu surtout di daw zone de conflit dañuy abolir frontière complété ko par convention internationale bu 1990 bi nga xam ne résolution 45 158 dafay wax ci droit des travailleurs migrants et leurs familles donc loolu su ko àdduna bi defee dafa am lu tax parce que dañoo jàngee ci guerre ci ni fexe ba nit ñi raw mooy le moindre mal guerre moom amul benn boo xam ne nii bu baax la gis nga léegi-léegi ko inventé nañ ay concept ay frappe chirurgicale ak yooyu mm. mais dégâts yi muy def boo xasee ba largué bomb mënatoo ko maîtriser donc guerre dañuy jàpp ni bu ñu ca nekkee rek nañu fexe ba nit ñi raw. mais Ablaye est-ce que s'agissant des Africains on peut parler de racisme comme yu ñuy wax parce que comme pëcc xoo am na jumtukaay yi matul c'est normal aussi Ukraine boo waxee ñoom li ñuy wax mooy dafa am ñoo xamante ne ñoom la ñu privilégié mooy tout tànk yi jigéen ñi ak mag ñi est-ce que mënuñ koo nangu ci situation boo xamante ni situation kaw la. non loolu jëmatul ci race privilégiée. Mm-hmm. ci nit ñu ñuul ci africains yi am na ay xale. dëgg ak ay jigéen. am na ay jigéen. Mhm. am na ay mag lay la. loolu da ngay parce que xam nga choix boobu choix wu discrimination kenn du ko assumer même ñi koy def mënuñu koo ko fenn. effectivement donc foog ñu wut lay. Mhm. parce que ci population boobu ñuy discriminer mais am na ay xale. Mhm. am na ay famille am na ay mag donc dañ leen war a loger. même enseigne mënatoo ne damay privilégié parce que sama population loolu rek lañ mënoon wax mais loolu mënuñu ko wax parce que loi nanguwu ko. Hmm. convention internationale nanguwu ko ñëpp bokk yem ci situation bu mel nii xëy na ñooñu ñuy discriminer am na ci jàmbaar yoo xam ne tey bu fekkoon hmm. benn place la. Hmm. ñu ne seen soxna jiitu du ñu xaar sax ñu wax leen ko. bu fekkoon ne benn place a des nga nekk ak sa soxna ak sa ak sa doom. Hmm. mais xëy na sa xel du jàpp sax yow nga dugg ci. bus bi wala ci train bi bàyyi fi sa soxna ak sa doom. Hmm. ñoom ñoo koy jëlal seen bopp man dama jàpp ni loolu lay la mais xam nga lu tax muy lay parce que aussi peuple yooyu am na doo xam ne seen diggante ak der bu ñuul peut-être jot nañu taxaw ci. discrimination yi foofu dafa non seulement dafa metti mais dafay rejoindre impunité. Hmm. foofu rek ngay gis Russie ngay gis ñu def fa der bu ñuul lu dara jarul te dara du ci génn. xam nga Amérique sax bu ñu boddee nit rey ko ci racisme di nga gis yoon. def ci li mu ciy def les manifestations voilà mais nag Russie wax dëgg fa yàlla. Mhm. li ñu fa nootal. étudiant der bu ñuul bëri exemple yi bëri mhm. te souvent. ça se passe même public te kenn du ci wax. très bien amoon naa beneen laaj euh, laay ñu bëri dañu jàpp ne guerre bi c'est vrai que euh, ñu ngi xalaat suñu xel du jug ci suñu compatriotes yooyu fa nekk nga xam ne ñu ngi toll ci une centaine mais ñu bëri dañu jàpp ne euh, guerre bi ñun suñu yoon nekku ci bokkuñu ci ndax mën nañoo taxawee noonu ba léegi. loolu day gàtt. même si faaleen yeeg jaañi jaañeen yi mburu mi xaw nañoo tiit ndax blé bi foofu lay jógee. <laughs> waaw non su weesoo xëy na li Malick doon wax léegi boo ñuy kaf naan bul wuyu Poutine nangam ak nangam. Mm. loolu presque ci pays yëpp la du Sénégal rek. Mm. France gee ñu ngi naan seen président Emmanuel Macron. Mm. bu ñu dugal ak Poutine parce que. parce que xajul ci ñun. mais loolu ay kaf la. Hmm. maintenant soo dellu si waatee ci soo dellu si waatee ci problème dëggantaan. bu ngeen de toute façon c' est plus sérieux boo ko jàppee dëggantaan conflit bi. mënoo hmm. hmm. jàpp ne suñu yoon nekko ci suñu yoon ci wàllu dem. xare ji loolu moom àdduna bi sax da koo wees. kii de ko jox na <laughs> fit moom. principe bu principe bi ñu demee woon ci guerre mondial nga xam ne sa pays allié bu nekkee ci guerre dangay dem renforcer ko yónnee ay soldats ñu dem xeexi principe boobu defe naa ne jeex na ci àdduna. Ukraine bokkul ci Union européenne donc ça va ça risque de violer les. waaw mais waaw mais am na ay pays yoo xam ne am naa ñoom ay accords yoo xamante ni peut-être war nañ ko mën a taxawu. foofu laay waxee tey bu ñu demoon ba di taxawu àdduna bi moo weesu. fu ñuy defee guerre mondiale ñu ne bloc bi la contre bloc bi la ñëpp dañuy jël ngànnaay nga choisir sa camp. loolu defe naa ni àdduna bi wees ak ni opinion publique internationale bi demee ñiy taxaw pour ne bu ñu guerre ñooy ëpp ñiy taxaw ne nañ dem régler ji problème bi la preuve. Mhm. Poutine mu ngi def li muy def gisagoo ku jóg pour ne nañu ko régler par les armes comme moom. arme la koy réglé fi mu toll nii di jóg di dem ci Ukraine maintenant. Afrique ban mën a Afrique ñun lu ci suñu yoon ñu Russie ak Ukraine gis nga tey am na exportateur boo xam ne damay bañ a tudd marque diwlinam bi waaye mooy diwlin bu jongama boobu. am na am na lu nekk ci port bi loo xam ne. Mhm. am na kayit yoo xam ne ak lu mu fu situation mën a toll. am na kayit goo xam ne yaa ngi koy xaaree ca pays de départ marchandise bi te bu yegsee nga koy jot tey ji loolu mënul a génn. Mhm. amagul impact nag ci li ñuy wax ci ay prix ak yooyu parce que wax dëgg fa yàlla li fi yegg si tey ba ci ñetti weer yi li fiy ñëw prix ba ñu ko jëndee lu weesu lu jiitu li xew la mais bu yàggee bu conflit bi yàggee forcément dana am impact mhm. non seulement dana ralentir échange yi ci wàllu jënd ak jaay parce que tey xëy na kenn talul sax commandé dara Ukraine wala Russie mais du ñun Afrique rek adduna bi niche yi nekkee woon supermarché wu monde bi nga xam ne dañu fa daan jënde zone Russie bi ak Ukraine soo ko boolee presque grenier wu adduna bi la ci yenn produit yi. ay blé. blé. Mhm. yenn fruits yi. ak yeneen ak yeneen cest que ils se sont donné les moyens. Mhm. d'être le grenier du monde ci yenn affaires yi. Mhm. Russie premier producteur de blé. Ukraine cinquième. boo leen boolee ñoom ñaar. Mhm. daanaka plus de 80 pour cent wu bële adduna bi la ñu yor. donc loolu da ngay gis ni impact yi muy am ci produit boo xam ne produit de première nécessité la parce que ci li muy dugg ci li ñuy jëfandikoo dafa bëri. bu leen du mburu rek xëy na ñun mburu rek lañ ci jàpp mais. foofu la toll maïs bi nga xamante ni moo intrant bi njëkk a dugg ci production euh, aliment de bétail waxuma mboq ñun làq mboq lañ ci gën a xam Russie la ak Ukraine encore donc yooyu yëpp dafay am impact Sénégal fan lañ toll tey barki Dembo Ndiaye ministre du commerce nee na bloqué nañu prix wu aliment de bétail parce que industriels yi jàppoon nañ ni dañu ko war a yokk toll nañ foo xam ne hmm. dañu ko yokk muy rappeler schéma wu boulanger yi ak ñi nga xam ne mooy meunier yi demoon ba benn moment boo xam ne obligé hmm. boo tollee foofu ëllëg gouvernement bi day am raison lâché prix bi parce que dépendre rotul si moom bii bloqué nañ ko parce que jàpp nañ Euh, li fi xew yëpp ndawal gi bu yokk itam day metti moo tax du guerre bu ñu sori sori nañu ci distance sori nañu ci culture parce que c'est vrai culture occidentale ñun moo moo ñu gën a jege sooy xool que culture ci parti parti Europe de l'Est boobu mm-hmm. mais soriw ci distance mënuñoo sori ci wàllu géopolitique parce que impact yi ci ñun la et dañuy war a aussi ci société des nations ñun dañoo war a compter ci ci bu ñuy régler problème yoo xam ne jéggaani na. diggante Russie ak Ukraine. très bien dañ cee a am baat ñun tamit wax ci. Abdoulaye foofu laa bëgg ñu taxaw ci euh, wàllu euh, économie euh, yaa ngi wax na ne conséquence yi dina ce sera fâcheux. Euh, bu fekkee ne mbir bi dem na ba gën a gën a law euh, est-ce que du doon occasion parce que ku wax Russie xam tamit lu jëm ci wàllu production de gaz est-ce que du doon tamit une occasion pour certains pays africains comme le Sénégal mi nga xamante ni dina tàmbali production am dans ce domaine-là ngir ñu doon alternative euh, par rapport à la Russie gën a mën a maximiser suñu production gaz. waaw xëy na mënuñu accélérer. production bi dafa am ay préalable. Sénégal jàpp na ni 2024 gën kaa gaaw lay génn peut-être que mënuñu accélérer. ba gaaw génnee gaz bi defe na optimiser nañ euh, délai yi mhm. mais li nga ciy jàngat li li liñ ciy jàng jàpp ko ci mooy effectivement dañu war a fexe lépp lu ñu dépendre moins ñu dépendre ci keneen mieux c'est te loolu bu dul conflit bi Covid moo ñu ko njëkkoon a jàngal. Mhm. Covid bi nga xam ne moom lañ nekk ba léegi euh, dañuy am glissement sax di wax Covid bi ñu nekkoon waaye comme ñu ngi ci ba léegi Covid bi ñu nekkoon moo ñu njëkkoon a jàngal ne. lu ñu fexe bañ a dépendre ci keneen. Mhm. mooy li gën. Ah. parce que ba frontière yi àddina bi yëpp. ku nekk tëjee sa buntu kër. ku nekk yaa ngi contestation. ku nekk da nga tëj sa li nga dese waaw li nga dese effectivement te li nga dese mënoo ci dund lu weesu ñetti weer. donc gaz ak leneen ak leneen. doguma la olof moo naan bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk. exactement yenn situation yi boo ci tollee. pense d'abord à ta famille da nga koy natt rek ci sa kër bala ngay génne ravitaillement di joxe na njaboot gi dund ba pare ci relation internationale actuellement nii parce que gis nañu nekk euh, ngi wax ñii ngi condamné ñii ngi kii sur le plan international. c'est la dernière question relation yi naka naka lay demee et puis Poutine fi mu nekk nii est-ce que moom mën na dékku àdduna bi yëpp parce que ñu nekk ñu ngi euh, déclaré que ne wax dëgg yàlla du ñu bàyyi Poutine muy def lu ko neex. waaw xëy na xëy na àdduna bi moo yaakaar ni guerre mais yi mais Vladimir Poutine lu Russie waajal la mm. waajal dafa waajal boppam ci ne dana may gàllankoor danañ ko tëjal ay bunt waaye na mu koy defee na mu koy dékkoo mooy fexe ba compter le moins possible sur les autres cib délai nag mën nga bañ a compter sur les autres mais mënu la mënu mm. kenn mënatula tey mm-hmm. nekk ci situation boo xam ne da ngay tëju yaakaar ni sa lépp mat na yow rek mën ngaa dem préparé na ko peut-être foofu la xawee gagné ci kaw ñi nga xam ne ñoo ñooy disons les grand du monde mhm. occidentaux yi surtout mais nag àlakulial dana redéfiniraat mm. géopolitique àdduna bi eh parce que tey soo gisee am na ñuy condamné am na ñeneen ñoo xam dañ cee maandu bu ñun Afrique dañ cee maandu te peut-être que sax mooy li gën parce que kenn war ñoo poussé aussi ñuy tànn suñuy xarit mm-hmm. mën sañ nañoo xaritoog ñëpp sañ nañ nag nekk ci condamnation de principe mm-hmm. guerre kenn bëgg ko wax ni jàmmoo leen loolu defe naa ni ñëpp mën nañ ci mais maandu googu est-ce ko def parce que avant guerre bi avant dafa am débat boo moom fii dans le Sahel mooy wax Wagner est-ce que lii du tax nit ñi gën a xoolaat su réew mu toll mel ni Mali wala ay euh, Centrafrique euh, ñun doon recruter ñun jàpp ne ay mercenaires la ngir ñu yor seen kaaraange. xëy na bu si génnee ci guerre bi ba gañe ko peut-être day gën a renforcer sax position yooyu mu am ci mu duggee. Mm-hmm. ci àdduna bi rawatina si Afrique dana ko gën a légitimer. wala bokk mu gën a dooleel gën a dëgëral sax ñi nga xam ne ni ñoo def appel à lui. su ko ñàkkoon tey dana permettre quand ñu démanteler lu bëri loo xam ne Russie mu ngi koy def ci at donc lu bëri dafa dépendre ci ci conflit bi mais ñi nga xam ne digaale nañu ak moom ba pare tey ñooñu ñëw ñoo gën a nekk ci situation maandu mhm. jàpp seen bopp parce que effectivement bëgguñu mhm. digaaleeg nit ba pare. Mhm. finalement carte gi wëlbatiku de telle sorte que. Mhm. la ngeen diggee du ko du leen mën a jëriñ. du ko mën mhm. a assumer je pense que ci situation boobu lañ nekk tey. très bien merci beaucoup euh, Abdoulaye Cissé ci jàngat bi je pense que dañuy desandi ak sujet bi dalal suñu invité.